wax naa ko lépp nag mi ngi sookee ci procès bu doxoon ci diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr ndax li ci xew lu ñu mënoon xaar la wala lu mënoon a ñàkk la pour yow li ci xew ndax lu waroon lu li ñu mënoon a xaar la wala lu mënoon a ñàkk li ci xew moom ñëpp gis nañ ko waaw Papa Ngagne ah, li ci maanaam d'abord procès bi li ci xew lu mënoon a ñàkk la mhm. waaye nag ni mu déroulé tamit lu ñu lu ñu mënoon a xaar bu doon dafa yem ci procès rek bu naturel comme procès yi fi daan jaar yaakaaruma ni conséquence yi mu am ni dina ko am parce que yéen dañuy wax ni lépp loo gis rek bala ngay wax conséquence yi da nga xool cause bi d'abord waaw cause bi lan moo sabab mbir yi ba mbir yi dégénéré ba agsi fii mm-hmm. ba nga xam ne tey képp kuy ab sénégalais rek mm-hmm. jàpp naa ni ni situation bi demee nii am nga ci kersa waaye nag mbir mi buñ ko bëggee jàngat yemale ko ci conséquences yi rek day day day indi jafe-jafe. foo ñu jàngat mbir yi fan la tàmbalee. loolu dafa am solo sax. bu ñu il faut ñu jàngat fan la pour mën ci am saafara wala dara il faut ñu xam. ok parce que àdduna moom. Mhm. wolof nee na lu yëngu lu ne la ko yëngala ko ëpp doole. Mhm. waaw lu yëngu lu ne la ko yëngala ko ëpp doole maanaam mbir mi benn procès la boo xam ni. dafa am benn xale bu jigéen bu ñuy wax aji saar mu tëb tuumaal benn kilifa ci réew mi koo xam ni chef de parti la ba pare nekk chef de famille yor ñaari soxnaam mu xëy tuumaal ko ni daf ko siif sénégalais yëpp toog di déglu moom mi nga xam ne moom lañ tuumaal bi mu génnee mu ni complot d'état la ba ko waxee it am na ñu ko gëm am na ñu ko gëmul waaye li wolof di wax ni nañ yónni yàgg nañu yónni yàgg loolu la wolof di wax ñu gis ni mbir yi di dërulee di dem ñu gis yeneeni loxo ci suuf yoo xam ne nii wuute naag nit ku ñu nit ku ñu jiiñ siif kese bi mbir mi déparé rek déjà ci la ci la ay jafe-jafe commencé bi am parce que boo yëkkatee benn mbir fukki bakkan ak juróom rot ci ci saase ñi nga xam ni ay boroomi xel lañ yëpp tey saytu moo xam kilifa diine wala kilifa aada surtout sax kilifa diine yi laay gën a wax parce que mois de mars bi situation bi mettee ba institution yëpp ndërmeelu ki régler situation bi ba nit ñi delluwaat seen kër doomu daara la di di sëriñ Muntaxa Mbàkke ak ñim ci àndaloon ci moment yoo xam ni moment yu jafe woon la parce que bu ngeen fàttalikoo ku mel ni rahmatullahi alayhi Aline Badara Cissé le le médiateur de la République mu defoon ci discours bu historique mën naa ni ñaar ñooñu seeni seeni wax rek man moo ma gën a marqué ci mbir mi mooy koroot bi sëñ Bas Poroxaan ñëwee waa M2D dañuy def marche pour continuer sëñ Muntaxa ni dama bëgg ngeen teg li ngeen yëkkati ci suuf ñu waxtaan man te témoin oculaire la parce que li may wax dama ko fekk korog bi sëñ Bas ñëwee yeewi askan wi rawatina président Ousmane Sonko ak ñim àndal dañu ni Serigne Muntaxa ku muy digal maanaam ku muy ku muy ku muy ku muy ñaan amu fi ku muy ñaan amu fi waaye ku muy digal muy def moo fi am bu ngeen fàttali ko loolu la ay dëmboo ci waxoon malgré situation bi ni mu tàndee woon ñu jël lépp teg ko ci suuf jël ay recommandations nag jox ko sëñ Bass Porokhane pour mu jox ko président de la république monsieur Macky Sall waaye malheureusement li nga xam ni mooy dëgg. recommandation yooyu ba léegi kenn jëmu ca mu ngi ci taabalu président de la république sëñ Muntaxa bokk na ci li mu ñaanoon mooy nañ teg mbir mi ci suuf waaye teguñu ko ci suuf ginnaaw bi président de la république ci boppam bu ngeen fàttali ko dafa génnoon ni li ngeen wax dégg naa ko li ngeen wax dégg naa ko mu nekkoon diskuur tamit boo xam ne loolu lañ doon xaar ci moment boobu waaye malheureusement nag gannaaw bi dañoo wax ni li fi amoon du fi amaat li fi amoon du fi amaat nag jàpp naa ne tey bokk na ci li indi ci situation bi parce que Pape Ngagne gis nga peuple kenn du ko défier te li amoon mois de mars du mbirum Pastef du mbirum Ousmane Sonko le peuple sénégalais moo génn wane ni d'accordatul képp ku am projet ci réew mi ay nit am ci yow yaakaar. ñu fexe ba ndërmeel projet boobu. lii mooy dëgg. ñu génn défier peuple bi ni li amoon du fi amaat ba ma déggee ni li fi amoon du fi amaat laa ni juum nañ. boo fàttalikoo bi président waxee loolu am na ñoo xam dañ ko ni li fi bu ngeen defoon bu ngeen defee li ngeen defaatoon ñu def lañu defaatoon parce que bu ñuy jàngat mbir yi dañ koy jàngat donte man li am nii ku ma xam ak sama responsabilité. ak parcours bi ma am xam ni mënuma koo rafetlu man mënumaa lu violence ak ci camps bu mu mën a jóge waaye nag du tere bu dee dañuy jàngat il faut ñu jàngat li indi situation bi mooy défier ce peuple bokk na ci li indi situation bi mhm. loolu mooy dëgg d'accord kon d'accord li fi amoon du fi amaat mhm. ñu jël procès bi Papa Ngagne nit boo ko tuumaalee viole viole du caaxaan mooy ku siif nit te ki nga koy tuumaal raflewul jigéen parce que yor na ñaari soxna di ab chef de l'opposition lu gàtt gàtt million ngi nit gëm ko kooku boo xëyee yow ma ko ko tuumaaloon wane ni viol amul menace de mort amul da nga ko war a bàyyi mu ñibbi këram loolu jarul jàng droit pour xam ni logique la d'accord d'accord malheureusement nag d'accord dossier bi tey mhm. ni mu dégénéré nii li ci dugg yëpp d'accord amul kenn ku mu neex man de neexuma d'accord merci beaucoup waaye nag lii nag jërëjëf imam bëgg a jàngat mbir yi tamit il nga nangu nii défier ce peuple voilà bokk na ci li indi situation loolu moom duma si sax euh,